xasiida gi ma yore wala xaddi karram naa ni aadama lañ koy wax noonu la ko sëñ Tuubaa tuddee muy xasiida gu am solo lépp di kéemaan waaye tey dinañ leen ci jukkil benn bayit boo xam ne képp ku koy faral di wax yàlla dana la ubbil say buntu yàlla dana la defal ay may yàlla dana la defal wërsëg wu yaatu lool ci barki xasida gi ci darajey kun fayakun xam ngeen ni Sëñ demoon na ba wax ne yaa jaaxilan xattiya fawqa zanni wa zanna xayri yaa azimal manni yow yàlla suñu boroom mi nga xam ne def nga sama mbind mu kawe sama njortu kawe njortu ku man yow mi nga xam ne yaa yaay boroom xiiwal yu màgg yi yaa màgg ay xéewal dellu waxaat ne ah taytanil baaqi bi jaaxir waaqi jumlatama talabtu fi awraaqi lépp lu may sàkku ci samay këyit sama sama xasida yi ni ma koy sàkkoo lépp la ma yàlla di jox waxaat ni ne ah baax yi bi jaaxir waaqi fawqal lazi talabtu fi awraaqi yàlla ci barkeb yonent bi la ma joxe lu lu kawe li ma doon ñaan ci samay xasida moo tax euh, am na benn bayit bu nekk ci biir xasida gi fattaahu waxaabu yaa razaqu yaa maliki liftax wahabliya li bikun laana <laughs> fattaahu yow suñu borom mi nga xam ne yaay ubbe bi suñu borom mi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy ubbi buntu xéewal yi waxaabu moom mi nga xam ne moom suñu borom mooy maye waakoon bi mooy may xéewal yi razaqu bul fàtte def na fattaahu waxaabu yaa razaqu yow mi nga xam ne yaay wërsëg laakoon bi yaa yi yow sama buur di sama borom lif tax yàlla na nga ma ubbil samay mbir wahabliya yàlla na nga ma defal say may warzuq nii yàlla na nga ma defal wërsëg bi kun ci barke bi kun fa yakun bayit bi képp koo xamante ne ne yaa ngi koy faral di wax boole ko yenn ju sell yàlla dana la ubbil say buntu dana la defal ay may dana la defal wërsëg wu yaatu ci barke bi kun fa yakun moo tax mbindum sëñ tubaab benn bayit képp mën nees na cee amee lu nekk àdduna ak àllaaxira ñi ngi lay ñaan nga partagé ko ngir ñëpp mën cee jëriñu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.